asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah dafa ñëw ci ñaar ñoo xam ne day bëri woon nañu ba ñu bëree nag kenn ka amoon na ndam ci kaw morom ja muy diggante Gris Bordeaux ak ki nga xam ne nii moo di Bombardier mu mel ni ki nag seenub combat fi mu nekk nii day am na ñoo xam ne wala am na koo xam ne boog mu ngi koy démarché bëgg koo tëgg muy abramas boo xam ne daal fi mu nekk nii am na koo xam ne daal taxaw na temm ci tëgg ko ngir ñoom ñaar nag ñu dajawaat bëre muy ñaareelu yoon ba nañ combat bi nag fi mu nekk nii daal li leer ba leer mooy fa nga xam ni nii daal mori Mauritanie fa lañ ko fas yéenee nag yóbbu wala ki ko bëgg boog foofa daal mooy priorité ngir mu yóbbu fa làmb ja Mauritanie daal wala Gambie wala boog sa Sénégal waaye loo ci mën a dégg daal daa mel ni Mauritanie moo gën a placé wu ngir combat mu mel ni ki ñaari mbëri nag ku ci nekk pare nga Bombardier moom la mu xamle nee na li leer ba leer de moo xam muy Sénégal wala muy Gambie wala Mauritanie wala fu mu mën a doon ci àddina àddina bi sama diggante Gris Bordeaux moom saa yuñ ci pare man pare naa ngir fekk ko fa mu ne jàkkaarloo ak moom defante ak moom giri ne kon na mu ca yebu ca man tamit ku ma ca ba max damay jël man mi maa la gën a pare mu mel ni ki kon ñoom ñaar fi mu nekk nii moom kon mbir ma desatul ci seeni bagage fa mu des a kay mooy ca ko war a tëgg combat ba li leer ba leer daal kon loolu moom la bi xëy ñu indil ñu ko beneen boo xam ne moom wax nañ cee wax a wax a wax a wax ba ne xaaw ay weer a ngi ñu cay wax muy diggante Modou ak Ama Baldé mu mel ni ki nag ci loo xam ne ni daal ñu ngi ko jëlee ca Leewtoo point net jàppal combat combat ba daal li leer ba leer fi mu nekk nii moom lig ni ko laay ma nga xam ne ni moo ca doon dox di ca wax di ko négocier gisa teesu ko wala ñu dégg ko su sunu làmbi tamit noonu la ci ñëwee tey wax nu ko mu mel ni ki daal lig kon fi mu nekk daal combat am booba est-ce que nekkul ci loo xam ne li olof di wax naan lépp dafay bëgg a toxe daal di tàbbi géej ndax gisatee su ko déggatee su ko mu wax ca li nga xam ne nii de moom moo di combat ba kenn koo xam ne moom am na combat ñu di ko xaar ak ndam wala boog ndam war ko mooy Tafa Gueye parce que nee nañ depuis 2014 ba tey de amul victoire bu mel ni ki nag fi mu nekk nii de fa muy jaar ba jógaat ak ndam moom la yëglikaay bi xëy tey samp ab laaj di ko laaj leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da caa ñëw muy sunu lamb door bi ka nga xam ne nag moom moo di maam ànn Diop maanaam Samb wala moom daal loo ci mën a dégg moom yof ba mu ngi cay wax jàpp na ne daal sunu làmb d'or bii moom galaa lay doon boo xam ne nii day événement bu rëy rëy lay doon ndax nag daal buñ ca yeggee ñoom taxawaay ba bañ ca na a taxaw loolu la xëy di wax moom soxna soosu ci yëglikaay bi nga xam ne nii daal moom moo di sunu làmb leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fa nga xam ne moo di ca la tribune la tribune ba tey dafa xëyti ci tafaatin nee na tafaatin mi est-ce que nekkul menace ci ñi nga xam ne ci ñi nga xam ne ñooy VIP làmb ji yëglikaay bee xëy tey ñëw di laaj boobu laaj yeneen xale yoo xam ne moom dañoo war a bëri ci weekend bi nu jëm wala ci dimanche ji nu jëm muy diggante Bulldozer ak ki nga xam ne mooy Brise de Mer numéro mel daal zal ba mu ngay ñëw di décortiquer combat ba ci ñaari xale yooyu nga xam ne daal seenu combat taxaw na ñeneen ñoo xam ne moom seenum écrit doxatul wala boog yëglikaay bi xëy na ñëw di ca wax muy école les tigres bu mbay géey daal seenum taxawaay ci lamb ji sunu lamb xëy na tey ñëw di ci wax leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fi nga xam ne nii daal moom moo di ci journal bi muy li nga xam ne daal mooy wàllu lambi simple ji mu mel ni ki nag moom ba weekend bi ñu jëm moom xaalis bi ci nar a wàcc bëri na ci lamb ji nga xam ne du ànd ak dóor la ko commencé Sokone ba gaal gi daal yëglikaay dëgg daal quatre millions sept cent mille francs teg nañ ko fi mu mel ni ki daal kon mbiri simple yi moom ku yebu na nga waaj ndax weekend bi moom nar naa tàng jër jër jër te xaalis ba bëri na quatre millions sept cent mille francs la yëglikaay bi wax ne mooy li nga xam ne daal moo nar a wàcc ci làmbi simple ji la ko commencé Sokone Mbam Adrien Senghor ba ca terrain gaal gi mu mel ni ki daal kon man est-ce que du ma jéem ut doole wala ma entraîné ci weekend bii jëm ndax na xaalis bi yaakaar naa del ku ko jël dina am lu mu la jural de ay millions yu baree baree bari la. mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm sant ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen maa ngi leen nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di la delloo ziar di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën nekk si àddina bi rek maa ngi leen di nuyu di leen ger di leen ñaanal jàmm te di ko saxu si ñoom. waaw kat de kontaan si Sadio de encore. Ah. waaw waaw Sadio day la ma waxoon rek xam nga nit moom li mu man te di ko def su koy def da ciy nekk en les yaa ngi dégg saajo foofu la toll te par les meilleurs comme li ma ko waxoon rek te defe naa loolu prouvé na ko démb parce que yaakaar naa dim se daan naa match yi ba mu jeex. deux passes décisives ak. ak benn bit boo xam ne ni bit bu rëy. pied waaw Sadio actuellement c'est le meilleur man Babacar loolu laa gëm man. amul ku ko daq football ku ko bañ. ah wax la la neex rek waaye man li ma gëm man moom loolu laa wax pour man moo fi dàq football loolu am na solo Babacar ñun nag euh, si làmb ji sunu làmb moom te dafa xëy euh, taxawal benn combat boo xam ni combat revanche la si box ñoom lu ñu yaakaar ne ni ngi koy dox muy combat ki nga xam ni mooy gri Bordeaux ak Bombardier ñoom daal neñ ñi combat bi Mauritanie lay amee bu nu jokkoo nag ak ki nga xam ne mooy Bombardier nee nag muy muy Sénégal wala muy Mauritanie pare na ki nga xam ne mooy gri Bordeaux moom nee na pare muy Sénégal aussi wala muy muy Mauritanie pare na kon boobu waa Mauritanie dañuy préparé sama dëkk. <laughs> ma ciy nuyu Asi Diagne ca Mauritanie ah si fa tëru Modou Lo la ak Benzema dem moom tamit di sama soppe di soppe waa Leewtoo loolu nag mooy ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wet li su ma déggee gi rek Bombardier ñoom ñaar ku ci ne ni nga waxee ci combat bi maanaam ñoom ñaar ne nañ combat bi muy Mauritanie Sénégal ak Gambie ak Cap fu mu mën a doon ñoom ñaar pare nañ pour bëree kon promoteur bi. bal baa ngi des ci ay camp na jéema a dugal bii bi fisale combat bi yóbbu leen Mauritanie parce que comme Gambie am na ñu ngi fay bëri di fa tëgg ay làmb Jamaïque war fa dem la 15 décembre c'est normal tamit bu ñu jëlee Gris ak bombar ji yóbbu ko waa Mauritanie defe naa dina neex trop Mauritanie parce que ñoom dañuy dund làmb bu baax a baax a baax a baax waaw waaw. loolu am na solo Babacar suñu laam tamit dalal na ki nga xam ni mooy mooy maam Anta Diop Samb di secrétaire général écurie Yoff moom daal lu mu wax nee na daal ñoom suñu làmb door bi ni ngi koy waajal bu baax a baax ndax nu fàttali na tamit euh, ginnaaw bu saison bi tëjee ki nga xam ne mooy écurie Yoff moom moo wutu ki nga xam ne mooy écurie door dooraat Babacar. waa moom maam Anta Samb boobu su ma ko déggee daa mel ni kon moom waa Yoff la. Mm. waa Yoff yi géej la a ah, ñuy nuyu waa yëpp di wax ne euh, li mu waxoon rek. écurie yi léegi defe naa ne amatul bu mag ak bu ndaw pour man problème bi liggéey la yoof nag ren ñoom ñoo liggéey ba yàlla def suñu lamb door boobu ñu gañe ko kon tamit mbir nag suñ la ko joxee ne la yaay numéro un moom feet ga war nga koo ngandal kon xam naa loolu tax soxna soosu xëy waxee noonu di leen féliciter rek encore une fois waa écurie yoof yëpp ah, Babacar sunu laam aussi mi ngi laaj ki nga xam ne mooy Tapha 2 nee ñu est tamit dina Euh, succès. Tapha Gueye numéro 2 waaw gëj naa am ndam de su. Tarabaxa Tarabaxa l'espagnol borom ballon door bi. <laughs> moom lancé na mouvement moom pour utal Sadio Mané ballon door waaw mu jëm ci combat bu nar a metti ndax xale lay bëril muy abu Niassé te Abou Niassé dafa jóge ci dafa digganteem ak Zal Bawol bëgg a jógaat moom tamit kon yaakaar naa tey pour diggante mag ki nga xam ne nii moom moo di Taroobe xaa moom ah du yomb kon Taroobe xaa tam comme 2014 ba tey amul ndam ah ndam a koy war di ay supporter di ko ca xaar ñu yónni yàgg nag comme ni ma koy waxee rek bàyyi ba datu combat bi si kàttanu suñu borom ñu xool ndax xale bi da koy delloo yóbbu retraite wala dafa Guèye day jàngal xale bi lan mooy làmb kooku suñ jógee nag suñu laam dem fi nga xam ne mooy tribune tribune moom dañoo xëy euh, def sa benn samplaaj naan tafaatin Tine ce que nekkul euh, benn menace boo xam ne si kaw VIP ndax ku mu ko jox daal mu delloo avance Tapha waaw menace day ah tribune day loolu la xëy di laaj ndax Tapha du man nag li ma xam daal mooy actuellement dafa mel ni ci li ñuy xam wala di ko gëstu kan ni jafe naa utal adversaire Tapha Tine xaw ma nag lu xew yaa ngi dégg mbër yi nag comme lu may wax rek am na loo xam ne euh, wax ko day jafe parce que li tax mooy ñoom xamante nañu ñoom mbër yi seen biir yëpp xamante nañu ku ci ne xam nga li sa moroom capable ak li mu mën ak li mu tële parce que seq nañu ay géew fu ne ca xale ak ba ñu nekk tey ay mag kon yaakaar naa nag bu ñu la tribune xëyee ne est-ce que du menace ci ñoom loolu ñoom xëy na ñoo ciy war a mën a tontu waaye daal xam naa ne avance am moom actuellement defe naa ne bëri na fu mu dem mais est-ce que réussite am na ca. loolu tamit question la xaw ma nag lu xew ñoom nag ñoo xam parce que nit ku ne nit sax boo mënoo net li sa géntu moroom daal ñoom ñoo xam ne ci biir ba tax nangoogu ñu jël tafaatin mais xëy na tamit yaakaaru man ak ragal la parce que ki takk ngeem bay bëri man mënu ko jàppee ragal xëy na nag ku ci ne da am sa carrière am noo koy doxale am foo ko bëgg a teg xëy na loolu moo tax Babacar ñu jeexalee ak Leewtoo euh, point net Leewtoo point ñi samp laaj ñoom tamit laaj fan la Luc Nicolas nekk ndax euh, depuis bi mu taxawalee négocier ak ki nga xam ni mooy Modou Lo boobu ba léegi ngistu ko fay du si presse du si télé du si journaux du si rajo Babacar. kon daal da dañoo xëy di wër Leew Luc Nicolas <laughs> Leewtoo point net. itam ni ñu ko laaj tamit raay doomu ndeyam. raay ba ñu koy nuyu di ko ziar muy nuyu tamit doomam wéli di sama waay maa nii bu baax a baax depuis Mbour lig nag comme li ñuy wax rek moom comme li may wax rek lig dama naan ci làmb moom xama mu nëbbutu wala mu feeñ mais xam naa ne daal amatul lu mu ci war a prouver tey ci làmb pour man parce que par rapport ak fi mu ci jaar ak événement yi mu ci def yaakaar naa événement waratu ko mën a jaaxal combat bi nag coow li bëri woon na ci bëri woon na ci xëy na ñoo xëy nag déggatuñu lig mu wax wala ku bokk ci moom te lig sax su jumul boobu ba tey defe naa ni déggu ko mu wax coow li muy bëri bëri xëy na ñu ko wër stafu ko ah, mbër yi ñoom ñooy wax mais moom ba tey mu ngi toog jàpp njàmburam xëy na nag li muy bëgg a def mooy toog ne tekk déglu xool ba xam naka lay def pour bu jogaatee benn ku mën a ñëw mu mën a taxawal combat bi loolu la ko ñëpp di sant maanaam la ko ñëpp di souhaité fi mu nekk actuellement. ak amateur yi tamit ak amateur lam yi tamit bëgg nañ lool trop. Babacar si kàddu yoo leen tàggoo leen dox. daje dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Astane ne dèjà Brahma chéri Khadija Diallo depuis Italie di nuyu ki nga xam ne mooy Asek chéri Khoudia Seck te bi euh, Italie aussi di ki nga xam ne mooy May say depuis Ouest Foire di nuyu euh, Abdou Gueye euh, Pape Sita depuis États-Unis di nuyu ki nga xam ne aussi mooy Aïcha Faye madame Nia ak Aïda Diouf Babacar di nuy aussi fans club Babacar ni lay wax ni que carte de membre commencé dañ ko jaay waaw fan club bi day defar nañ ko sanc ko commencé jaay carte de membre yi ma ciy nuyu ñoom Pape Ndiaye Mass Baye Sall Paris ñoom Cédric Marcelin Ndour Jiga xam nga ñoom ñëpp képp ku bokk si fans club bi rek ñoom grand laay nguy jonn parce que tamit Babacar deful dara lu war a tax mu mérito fans club kon ñoom suñ ko defee rek dama leen naan ñoom ñoo baax kon maa ngi di nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax a baax a baax mais tamit tey di jaale sama ay mbokk parce que dafa am koo xam ne sama famille ci man moo génn àddina ñu koy wax aada ngom xam nga dëkk fu ñuy wax mbomboy reefan di rakk ci tumaane xam nga ñuy ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana suufu daaru salaam biñ ko yóbbu yàlla na ko uh, seddeek daal di nuyu ñëpp di ko jaale waa yëpp nag bàyyiwuma kenn képp ku dëkk si ndondol commune ndondol daal maa ngi lay jaale kooku tey di ñaan yàlla xare ko aljana bu baax a baax mais di nuyu tamit ki nga xam ne ni mooy sama yaay Penda Diawara bu baax a baax ko ñaanal jàmm nuyu képp yaa ngi seetaan mais tamit xarit sama doomu ndey Pape Diagne depuis Sine maa ngi koy nuyu Pape Diagne borom Sine <laughs> waaw. moom kese ngeen waaw tey nuyu naa ñëpp rek ñoom tuuti yaay Sarr ñoom xajiroos Ndiaye du ma leen fàtte Youssou Ndoye Saliou Ciss du ma fàtte kenn di nuyu tamit waa groupe baax ñoom Massamba Dieye Badara bu xarañ lu laay bu fas nuyu naa ñëpp waaw kon boog bu suba incha allah loolu mooy wane tey Babacar amul ay dóor bu suba incha allah.